commencé nañu nak eh, di defoon première tranche pour euh, jox euh, vraiment li nga xamné ni moy mooy diaspora bi Afrique du Nord. fu si Maroc euh, par exemple jox nañ ko première tranche 30 millions légui ni deuxième tranche bi jox nañ ko 300 millions fu si Mauritanie jox nañ la première tranche 15 millions. deuxième tranche bi jox nañ la jox nañ ko 100 millions Tunisie aussi pareil jox nañ ko 8 millions la première tranche deuxième tranche bi jox nañ ko 17 millions mais ñun li nga xam ne nii moo tax ñu ñu jóg tey pour wax ak euh, askan bi nga xam ne nii ñoo fi nekk mooy que ni euh, ñun ku ci mel ni tey damay jël exemple fa nga xam ne nii man foofu laa nekk foofu laa résider muy la Mauritanie jigéeyoo bi nga xam ni Mauritanie ak Sénégal jigéeyoo nañ ko dafa bari ay sénégalais yoo xam ni ñoom ñoo fa nekk di fa dundu te ñoo ñëpp mën naa ni tout le monde ci informel la ñu nekk donc il sont impactés ba nga xam ne nii donc li nga xamni ni ñom tay tey jaglal nañ leen ko ko muy 115 millions bob ba tay ne dur bi yàgg na loolu ñoom daf di lo xamni ni lu lu lu lu lu tuuti la par rapport ak nombre de sénégalais yi nga xamni ñoo fa nek dernier recensement bi nga xamni mo fa amone rek y' a près de 40 40 000 sénégalais qui sont inscrits là-bas donc tay bo fekkante ne da nga ba jël aussi euh nit bu nekk nga jox ko 50 millions donc tay bo défé le calcul tay do la l'udul ay 2000, 2000, 2000 2000 personnes ngay laal té loolu c'est insignifiant par rapport aux sénégalais nga xamni ni ñom ñofa nek gis nga Mauritanie dafa nek lo xamni ni gis nga waalo waalo yi ñu ngi les les Saint-Louisiens ils sont là-bas ñoo ñi nga xamni ñoo ci secteur pêche bi wa Gendar ils ils dépassent des milliers et des milliers jolof jolof yi ñi ngi fa kadior kadior yi tout le monde est là-bas té nag da ngay gis ñoo xamni ni seen famille entière lañuy déplacer pour dem fofu donc tay luy am.

mais c'est ce que je dara donc li nga xamni ni c'est attirer attention nga comité de crise bi nga tenir compte ci ñun information yi nga am sur le terrain avant ñuy def dispatching bi ñun dañ leen di wax ni li nga fi du y a 5 milliards ak 711 milliards qui ont qui ont été dépensés li nga xamni ni que Euh, vraiment ñu xool tous ce nga xam ne nii am na fi nekk na fi ay sénégalais yoo xam ni soxla nañ ko nekk nañ ay sénégalais yoo xam ni seen liggéey doxatul impacté nañ sonn nañ ñu jox leen li nga xam ne nii moo la war ñun on on on table sur des des des milliards pour la Mauritanie des comme comme la comme comme le Maroc li nga fa nekk ci ay nit jéggi na dayoo. donc lolo bu nous dikkee que nous Europe ñu leen di jox ay 500 500 euros ay 200 euros ah ba ci ay 2000 euros pour les pour les pour les décédés là en Afrique nous nous ñu ñu ñu traité de la sorte donc nous, il faut ñu dire ñu wax ak voilà le président c'est très bien que ni Afrique ce moo fi nekk xam donc kuy dimbali président da nga ko a dimbali ci diaspora Afrique bi nga xam ne nii au premier rang tay bu ñuy tay ñun ñom ñoo ñi njëkk a dégg est-ce que comprendre nga li ma la donc pour sukkandiku ci yoy yëpp pour jappalé leen au grand maximum voilà man ñun lool mo ñu yëkëti won ñu ni woon nag tey dañuy ñëw waxtaan ci ak yeen pour que ñom li nga xam ni def nañ ko muy 100 euh, millions en Mauritanie kooku vraiment ça ne représente rien du tout donc li nga xam ni des na ci xaalis dañ leen dañu bëgg bu fekkante ne ñu ngi koy joxewaat ñu jox leen loo xam ni vraiment dina mën a laal dina mën a law ci ci ci ci Sénégalais yi fa nek yépp déjà 100 millions kese lañ jox waa diaspora bu Mauritanie. actuellement première tranche bi 15 millions mais koku c'était pour gérer les urgences ñi nga xamni ño bloqué le fofu ak ñi nga xamni ni ño ñoo ak yoy mais 100 millions yi lañ leen dolli ci lu tagu ci 15 millions yoy tey ñun déjà on a un problème au niveau de la Mauritanie il y a des des régions yo xamni sont des de de de mille et quelques kilomètres ñoñu ñafa nek ils n'ont pas les moyens de s'inscrire sur la plateforme tay ñoo naka def ak ñoom té pourtant ñoom ñoo gëna a impacté ñi nga xamni ñoo nek tay au niveau de de de de la capitale té plateforme bi déjà au minimum rek tey euh, ci point bi ñu ma jox on a on a 9000 9000 inscrits sur la plateforme par rapport à à à ratio bi tay donc y a 7000 euh, 7000 ñoo xamni on va les laisser en rade voilà donc euh, il faut que il faut que ñu xolat bu baax li nga xamni mom lañuy def dam comité de crise bi nga xamni ne ni mooy gérer kii au niveau du ministère des affaires étrangères il faut ñu xol bu baax li ñuy def il faut ñu xol bu baax li ñuy def et puis waxtaan ak ñun ñi nga xamni ni ñun ñun ñun ñoo xam li nga xamni mo moo nekk ci terrain bi lool la moy tax suñu suñu naataangoo yi wër di wax naan kenn booleeku mais effectivement dañ ñu wara concerter dañ ñu wara laaj buñ leen joxé suñu avis ñu tenir ci compte mais depuis lors buñ ñu waxé li ñuy wax ak ñom il ni bon pour la forme or c'est pas ça Nous, nous sommes là nous sommes en relation avec nous. tout le temps nous avons les données donc nous devons tenir compte de ce qu'ils